recevoir gi ñun niñ leen recevoir nee na muy ñaan waajuram kilifaam sëriñ Falilou Fall jëwriñu sëñ Modou Aminta mu jottali ko am nuyoom ak siyaaram ci xalifa général de Baye Fall xalifa bi di sëñ Amdi Fall sëñ Modou Mbenda jottali xalifa Sall am nuyoom ak siyaaram ki ki fi nek borom Touba di Cheikh mohamoudou muntaha Mbacké neena ñew nak fal fa seené ror ci wat nam doon ror neena nag ànd ak délégation bi nga xamni moy and taxawu Sénégal neena parti Barthélémy jass mi moy député maire Dakar nee na kii mooy Abba Mbaye député la nekk assemblée nationale Mansour Sour mii mooy meeru Njaañ am na yeneen maire ma Diop Diop ci biir nee na am na yeneen maire ma Diop Diop mi ngi ci biir mi mooy Cheikh ma doon nuyoo léegi nee na Cheikh Gueye mii nag moom nee na mooy seen kilifa nee mooy ubbi yoon mooy meeru jëppal Derklé. ñi séq góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñi séq taxaw yëpp ñu ngi fi ànd ak suñu camarade ma Mbacké. nee na ñoom ñi ànd ñëpp ñu ngi nii toog. góor ak jigéen mag ak ndaw. ànd taxawu Sénégal. ak seen mag ñu ngi nii toog. nee na Cheikh Moustapha. loola tax ñoom ñi ñu ñëw tey. ñëw di leen nuyu si. ñëw siyaare si. ñëw yëglu. ñëw yëglu. sàkku ñaan. nee na fii ñu tey. bërëb bu baax la ak jëriñu. Euh, nee na sunu waajur wa moo ko dénk sunu waajur yi fi nekk di xarit Sane Baye Fall. Serigne Mountakha Mbacké moo ko dénk Serigne Amdi Fall. dañ may fàttali ni Moustapha Diop. nee daf koy fàttali ni Moustapha Diop. mi ngi ci dëkk. meeru asalem mi ngi fi. waaw fàttali leen ko kilifa yi mu àndal. voilà. moom nag moom laa ko doon mujjee. parce que moom ak Badara laa ni ko. suñu duggee njaareem. nee wax na sëriñ bi ni ko bu duggee ñaari buntu lañ fi am. ñaari buntu lañ fi am. Badara Baro. Badara Baro. di seen doom di seen taalibe di seen lépp. yàlla ko yàlla yërëm doon suñu waajur. nee waajuram yàlla ko sama borom doon lii ngërëm. waaye suñu waajuram muy soxna Jégg Faal. mooy suñu yaay ñun ñëpp. nee na kooku mooy sunu yaay ñun ñëpp. parce que ñun ak Badara. parce que ñun ak Badara ñun ñëpp. ànd benn àndee yàgg na lool. nena Bay. nee Kani Bay. di meru Ndulo. di Ndulo. buntu bi. moy buntu bi. li ñuy def lepp moom moo ko organisé. nee ñuy def nga gis ko ko bëggoon mu jël parce que mom ak responsable yi. da ko bëggoon mu jël ak responsable yi. nga xamni ñom ñoo leen téro da bëggoon buy sakku ñaan. mu cité walé leen. ngir yalla dëgeural seen taxaway ngir seen seen nekkin fii. tànk yi nag waajur parce que nag ko. nee na. umma bi ñoo ko bokk moom. pour l'islam lépp la ñoo ko bokk moom. weesu na rek. nee na weesu tarixa bi ak yoon wi. ñu ñoo ko bokk. jullit yëpp. seen affaire la seen affaire nee ndax bu sottee. ku ñëw di nga fa jëriñu. ko def pour loolu. dañ koo def pour loolu. nee mu jug nag moom ànd ak mbooloo ngir barkeelu si. nuyoo nee na di sàkku nag ay ñaan faal. ñaan ngir sunu xale yi nga xam ne ñoo toogal Mbàkke. yàlla gën leen dëgëral. yàlla gën kaani Gueye ak Badara mi leen magoon. ñaan ngir kaani Gueye ak Badara mi magoon. yàlla dëgëral leen. sàmm leen. musal leen muccal leen. nee di ñaan nag ngir lii ñuy jox ñoom ngir ànd taxawu yéene bëgg a liggéeyal réew muy fas yéene am yéene ngir bëgg a liggéeyal réew mi. fas yéene bokk ci élection yu deux mille vingt quatre. fas yéene bokk nag ci élection yi ñu dëgmal muy deux mille vingt quatre. incha allah ñu dañuy ñëw nag sàkku ñaan. nee incha allah nag ñu ne dañu yàlla seen barke maam seen def ci seen barke ak seen barke maam ya. mottali yéene seen yéene ñoom ñi ñëpp. nee loolu moo doon solo tànk yi Cheikh Moustapha. Serigne Falilou xalifa nee na nag mu lay gërëm ci teeru bi ak ni nga leen dalale yal na leen ci yàlla fay. liggéey bii ñu dénk leen yal na sottee jàmm ca sotti ci seeni loxo. yang na yàlla dëgëral tànk yi fëgg seen i bopp bàyyi leen ci suñu kanam lu yàgg lool. nee loolu ñaan yooyu nag ñu ngi koy defal xalifa général Baye Fall. ñu ngi koy lagi, it Serigne Mountakha Mbacké mi kilifa gi. jërëjëf Fall loolu mooy kàddu yi xalifa Sall nee na kàddu yi waibok, dégg na ko nan ko day am aw làmmiñ jëmm it day am ay tànk xalifa ba noppi am ay bët am ay loxo nee na sëñ Moustapha mii nga dendal nag boo déggee ñu naan la sëñ Moustapha Mbar waaye mooy sëñ Moustapha nag moom sëñ Modou Aminta ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Fall Fallilu Daaru Bayre léegi nag nee lim la war a wax yow Cheikh Moustapha mi mo la koy wax bo déggé li la sëñ Moustapha wax dégg kaddu kàddu yi Fallou dégg kaddu njabotu yi Fall gep dégg kaddu kàddu Amdi Fall mum sëñ Modou Mbenda mu jëlé ko ci sëriñ Moustapha mum sëriñ Bassirou Khalifa général de Mourid kon Cheikh Moustapha kàddu yaa ngoog bisimilah yow la ñuy déglu sëñ Assane waaw mi ngi ni toog waaw ba na bokki ñi ñep ñu bokku taatan سيام سانين عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëñ Moustapha nee na li dal Khalifa Sall. wala boog li wax li dal président Khalifa Sall. wala boog li dal président Khalifa Sall. li muy jiital mooy. sëñ Moustapha nee li muy jiital mooy. dangaa nuyoo woon. dangaa nuyoo woon de. kon waxaleykum salaam kon nee na waxaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. wala boog waxaleykum salaam wa rahmatulahi taala. wala boog waxaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. salaam moom nee na waxaleyka salaam moom kenn la. te nuyoo yow rek. te nuyoo woo yow rek. mbooloo mépp nga nuyoo. mbooloo mépp nuyoo nanu. kon bu lay fay nag. kon mbooloo mépp la ñu ànd fay. nee li dal président Khalifa sàll moo dal ñu baax ñëpp. moo dal ñu baax ñu baaxul. ku am yitte ku ne. ku yaakaar ni. koo yaakaar ni. foo yaakaar ni. foo yaakaar ni. boo fa demee. boo fa demee. sa te faju fa ngay dem ban seeni oto yi ban oto yi nee na ñii muy waxal ñi ngi dégg li sëñ Moustapha di wax danni kii ñëw ndax day ci ñuy àdduna ñi kii ñëw ndax day ci ñuy àdduna ñi am day sëriñ bu sant Mbàkke bu jëm ci si ci Baay Faal yi mu ni leen ku mën a doon mën a doon na ñëw ndax ku ñëw ku ne li ngay wut président bu dee dëgg ci yow da nga am loola nee loolu la toog fa toog fee laata mu ñëw fii waaw ñun ñu ñëw fekk ak singul na mais mu doon teeru gan yi dégg na lool nee bi nga ñëwee dox yi nga dox mooy dox yi ni ñu baax ñëpp di nga fekkee jëmm ji toog muy jëwriñ ji liggéey bi kilifaam yee. da mel ni lu njëkkoon a taxaw ca kilifaam yee. na ngeen def. na bu ngeen ko defoon. ku ngeen ko defoon. ku ngeen ko defoon. ku dul jëmmam ji. wala kilifaam yee. wala kilifaam yee. moom àdduna. waaye kilifaam yi ngeen bàyyi nag. waaye kilifaam yi ngeen bàyyi nag. ñëw fi moom. lii mooy seen mbégte. lii ñoom. ndax bin laataa xëy moom mii xëyal na leen bin laatee def. moom sëñ Fallou defal na leen. bin laataa wax. sëñ Fallou waxal na leen. ku am doom nag yu la noppale noonu. ngay léppam. ngay léppam. muy sa lépp. waratoo am benn coono àdduna. moo tax bi nga jógee. jëm si ci sëñ Fallilou. dajal nga yoon yëpp président Khalifa Sall. ndax kër goo ndax kër goo dem. fali Fallilou mi tok moy mak ci keur goge kon moy taw keur ga taw bay nak president sëñ Khalifa Sall taw bay Lo def ci bir keur bayam sëñ Moustapha neena mom nga ko defal so defare mom nga defal do aybe mom nga aybalal te ñu bax ñep japp nañ ni li leen tax a jug day yéen defar rek leen tax kon defar ngeen keur yëpp lolou nga wax ni bo jaare ci mom kilifaam yee nga wessu ñoo ngi dégg kàddu yi fim ne wala dinañ ko gisse nu ne wal waaye nag fee ñu ñi nga fess fees dellëg mbégte xam ni li ngeen war a wax yeen te war leen ko wax ne di ngeen ko ko wax mom mi tok waaye moom tamit lam leen war a wax nag. dee leen ko wax. kon noppal géen ko. noppal ngeen ay kilifaam. ndax kilifa yi sañoon. lépp lu ñuy def. wala ñu di ko wax. sëñ Falilou moo leen koy defal. moo leen koy waxal. mu des nag. président yaa ngi boole mi nga àndal parti Lamine kenn ku nekk làmbal sa xol. soo amee kilifa mu ni la. maa la gën a jege sa buumu xol. maa la gën a jege sa buumu xol gi. da ngay xam ni kii wax ak yow jege ne la. ca jaam bu nekk. suñu borom moo la gën a jege. sa xol sa buumu xol. kon jege na la lool. kon jege na la lool. li ngeen di wax ba dëgg ci li ngeen di wax Barthélémy Dias bu dee dëgg ci yéen. rafet leen jot leen jot ci loolu ngeen di wax. xam ne lu ci gën lu nekk. suñu borom dina ko dogal ci yéen insa rabbi nag bi nga ñëwee nag jaar fii ci moom li ndax nag ñëw gi mooy ñëwin wi ngeen ñëw ci sëñ Falilu nga xam ne kenn ku nekk ci yéen bi ngay ñëw buñ xoolee saxaar kanam la nga ci jàpp wala la muy jàpp mooy ku jëm si ci fu am yaakaar mi ngi ni di ñëw ba noppi nag jortu ni lam yaakaar dina am loolu day neex lam eh, ni loolu kat moo nekkoon ci seen xol président di ngeen di ñëw suñ borom nag dañuy maa ngi toll sama jaam bi ci fi mu ma jot rek nu ngeen seen jot gën a lu ngeen jorte li leen tax a jug suñ borom dina leen far ci loola insa rabbi nag ne loolu ngeen di ñaanlu nag barab bii ñu toog moom ku nu fekk ku ne ku nu fi ku nekk nee na bu nee ku nu fi fekk ku ne moom mii taxul muy wax moom mii moo tax ak kilifaam yëpp nag. ak kilifaam yi mu fi toogal yëpp nag. ak kay seen ak kay kilifa. te mel ni bii mooy yoon wi nga toog mooy sa ñaareel bi yoon nga ñëw fii ci liggéey bi. kon mën naa am kàddu yi nga doon wax ñor na la. bëgg nga ko bëgg it. mooy dëgg ci yow. yaa ñi nga àndal ñëpp. kon li fa Falilou Fall di ñaan mooy. li leen tax a jóg président. tax laa jóg yow. ànd ak mbooloo mii. ànd mbooloo mii. te ñu baax ñi def noonu. ñu baaxul ñu def. ko def. mooy suñu bëggee. mooy suñu bëggee. dem fan am yaakaar. dem fan am yaakaar. seen yaakaar jooju. seen yaakaar jooju. sa yaakaar jooju. yal na ko sa borom dogal ci yow. nee na sa yaakaar jooju yal na boobu mukk. nee na ñaan ko nag moom la fa Falilu man. bëggam gi bëggam gi. sun borom moko dogal mu doog am. ndax mom bëggu jambur ndax moom bëggu jàmbur la yor bëgg. muy ay kilifaam. ne lam bëgg nak sun borom moko yor. moko dogal. bu gënee ci yeen bu gënee ci yeen yalla ngeen ko am président. di ñaan nak lu gënul. lo gogu ñaan parti de médias du ñaanu aji ko xam. motax mu bëgg leena ñaanal. li gën ci yeen rek. aduna dafa yagul fa nga xam ne nag moom mooy lu dul jeex boo amee la ci yow ci àdduna ji ñu ne moo lay may la nga bëgg foofee ëllëg kon li bëggan ci yéen mi ngi ñaan si borom président ak mbooloo mi nga àndal yàlla ko sama borom doon la darajee borom liggéey bi ak ki koy liggéeyloo nag ndax dangaa lim ñaar ñoo xam ni nee moom dañuy liggéey bi lan leen dénk noo ko déggee rek nag. nee lool nag noo ko déggee rek. dénkuñu liggéey bi. dénkuñu nu liggéey bi. duñu ko jox dañu koo jox. duñu ko liggéey dinu ko liggéey loo nag. ñoo ko bu wér. nee ñoo ko moom bu wér. nga xam ne comme tax a jóg ku nekk. yaa nuy gënal. yaa nuy gënal. te mu taxul te liggéey bi taxul a jóg par télémise. fi ne nag ñëpp la waxaale muy réew mi. ku dégg kàddu sëñ Moussa Fall Falilou gi. day jàpp ni. day jàpp ni. bi sëñ Fall waxee. yóbbaale na lépp. yóbbaale na ñëpp. yóbbaale na fépp nee lii tax a jug na ngeen ko am fi ne nag buñ sañoon Barthélémy Dias waaw nee Barthélémy buñ sañoon ña ak ña baax ñoo bokk ak ña melo ku jëm ku jug jëm si ci yow di wut loo xam ne am nga ko jox ko koy jox du la boo sañoon ma am ko de. nee loolu nag moo del sëñ Fallu mii ngeen wut si. lim am nag wax na ko ba ngeen dégg ko jëmmam jaa ngi nii toog joxe fii loxo kenn ku nekk ci yéen yaa moom yéen a bokk wenn waajur wi àdduna nag moo baaxoo lépp du feeñandoo ñëpp it duñ feeñandoo waaye moom ñi doon nuyoo ñëw bokk lépp ay rakkam la ñu nee ba nga ñëwee bu njëkk. ka nga fekkoon. moo topp ci moom. Ah, ñi ñi ñi nee na ñi fi nuyoo ñëpp nag. la kooko doon lan doon. la doon lan doon. ba ci kii di tontu ba ci kii di tontu tontu li. moom da leen a mag rek daa njëkk fii ñu jiital ko. waaye seen xel mi bu ne sëñ Fallou wax loo woon moo gën a jub xel mi. fop moo gën rafet way yoon wi nak mo baxul li seigne Falilou Fall def li seigne Falilou def li dal seigne Falilou seigne Khalifa Sall yang ngi mi nga andal neena lu metti mo dal seigne Falilou mi nga setti way nak day yenub suñu borom waxal sa kilifa defal sa kilifa doo mën a xam lépp nag. te doo mën a xam lépp nag. nam ko bëggee. nam ko bëggee. te di làmbatu rek. te di làmbatu rek. fi ne day làmbatu rek. waaye yal na daj nag fàll li ngay làmb. ba yëpp ba bëggu kilifaam yëpp mën a sotti. ki yaramam nee na ki yaramam yëpp àndandoo di xasan. loo ca mu neex loo ca laal mu neex ko waaye ki nga xam ni fen rek mooy xasan ci moom te xamoo fu yow te xamoo fu fay xasan ah, loolu mbir yu métti loolu kat lu parce que Lamine lu métti la li dal sëñ Falilu yal na wooye fi moom tooyu waaye yéen suñu borom nag parce que Lamine moo mel noonu nu la ñu baax ñi yërëmee noonu la yéen bay wooye fa ci yow bu dee sa moromam jaam nag lu yéen ba diis diis lu la yërëm yërëm te yéenewun la du tax nga woyof moom nag yéen suñu borom la yor comme sëñ Falilou ndax yéen kilifaam yëpp la yor bëgg nag fu mu bëgg yéen ba dem fa. fu mu bëgg mu yóbbu ko fa. kon yéen na lu metti. waaye yal na woyof fi. waaye yal na woyof fi moom. kaddu yi wax. kaddu yii Cheikh Moustapha di la wax président. nee moom itam du lu man de. dafee suus rek. ñu wax loo ko ko. mu wax waaye mënu ko de. waaw. mënu ma ko waaw mais mënu ko de. leen tax a jóg nee na li leen tax a jóg daal. yàlla nga ko am président yaa ngi ñu nga ba amee ko nag nu kawe sa njot ci 2024 bi ci daraje liggéey bii nga nu fekk ak borom liggéey bi moom daal ku nu fi fekk ku ne loo wax ñu yaakaar yi dëgg la ci yow waaye faaw nag ñu wax la la ci yow na yow itam te def ko nag ne loolu kat moo dal liggéey bi ak borom kàddu yi daal tontu la jërul guddal. nee na jërul booy laaj ñu la waaw. booy laaj ñu la na. booy laaj ñu déet. doy te ki nga doon waxal kat président nee na la waaw. nee doy na sax waaw da nga bëggoon dégg sëñ na waaw. parce que da nga bëgg ñu waxal leneen. baax na. mat na mat na. Cheikh Gueye. mag mi na. daa mel ni yitte ji daa bari nee dinañ jaar ci yeneen barab waaye barab bii ngeen ñu ànd fi tey fii mooy daara Seexul Xaddiim ji sëñ Muntaxa Mbàkke di liggéeyloo Seex Ibra Faal nee na xëcc nag mu ajj nag fajuk aajo jullit yëpp ak murit ba fii ku fi ñëw aajo joo fi mën a indaale soo ko ñaanee ci muy dëgg ci yow sëñ Tuubaa dina la ko defal ni ko bëgg. ak ak jawriñam jii di Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Khalifa sëñ Fall nee na wut li ci gën a metti nga ñàkk da ngay wut. waaye la ci dàq nag mooy nga am da ngay wut. kon li ngeen di wut. te ñëw fii ci liggéey sëñ Tuubaa bi. fekk fi Cheikh Ibrahima Fall. nee mi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall. ci barkeb sëñ Tuubaa. li ngeen di wut yal ngeen ko am yal na ngeen ko am. waaw léegi dinaa bëggoon. Baye de. waaw bu ñu jógee day dem dem nuyu leen. ñee ay waajuram lañu. waaye moom lañ fi toogal. dañuy ànd nga dem jox ñee loxo. Hmm? mu njaboot. am amiin yaa wut am rek di leen ñaan jàmm ci li ngeen di wut ba tax bu ngeen ko amee di ko yore jàmm amin amin amin Olivier, te ñoom ñaar rek ñoom yóbbaale ñi ci des góor ñi ak jigéen ñëpp a ngi ni sëñ Salim lan la seemu saa waxoon fee nag noonu la bëgg waxaat fii ba nga dégg ko du wax lépp waaye day am lu na ci junjaat ndax ñii toog ñoo bàyyi kee seemu toog ñooy ay waajuram waajuram ak ñii ñoo bokk benn bàyyi muy muy Cheikh mu néew nag bu ngeen jógee dañuy ànd ak Cheikh Moussa ba ci sëñ Saliou ak sëñ Cheikh mii ngeen nuyoo ak ñoom kàddu yooyu nag da sëñ Moussa bëgg a jotee ñu dégg ko ah, sëñ bi neen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu o neen dañ ne woon sa tur yi da nga ko war a yokk kon xanaa ñu ni sëñ Khalifa khalifa ababacar sall ababacar aboubacar sall ko do aboubacar le seigne touba woy su turu do mu fab kàddu yi jaarale ko ci kii mu jëloon daa toog kilifaam gii loolu nag moom la yoon yu baaxoo nee ba mu ka ngeen fa daf koo jox kàddu gi. mu wax fa loo xam ni. dëgg la. foofee ngeen demoon de. ñii ñooy seen kilifa ñoom ñëpp. kilifa ma ngi nii. kilifa ma ngi toog. kilifa ma ngi nii. kon kee ku nu yilif la. waaye nangu na ko lool nag. waaye bi ngeen leen rombee jàll. da ngeen leen a ndax doom na dib taalibe. di kun yilif. tam nangu it kilifteef ka te mooy mag ci seen kër doom ju baax nag di taawu baayam loo bëgg a defal baayam te bëgg ca am jaar ko ci moom kon lu ngeen leen bëgg a defal bu ko jaaree ci sëñ Fallilu ñoom ñii toog seenu xel dina nal seen xol dina sedd bu yu nag nee lam doon wax lépp kim ko doon a mi ngi nii ñi ko doon wax rek ñu ngi ni toog. ñoom ñii tam lu leen waay waxal. jëwriñu Seex Rafal ja la ko waxal. muy ki teg liggéey bii ci loxoom. di Seex Mouhamadul Moustapha. moom itam lu ko waay waxal. defal ko ko. jëwriñu Sëñ Tuubaa ñi ko defal. Seex Mouhamadou Mountakha. ñi ngi ñaan sa borom mu yàggal ak dundam. ak seenu dund ñoom itam. di ngeen ñëwee. jëm fee ci sëñ Fallilou jàpp ci seen biiru xol mooy la leen bëggoon a wax ñoom nee moom ngeen koy waxee xam ne bu ko ko waxee dina leen ko wax moom te nam leen koy waxale mooy gën a woyof ci yéen mooy gën a rafet ci yéen yéen tamit da ngeen di waxal sëñ Fallou jëm jëm ci ñii foofu lay gën a woyofee foofu lay gën a woyofee ci ngeen waxee ko ci ngeen waxee ko fii kon xalifa Babacar kon xalifa Ababacar Sall jëwriñ bi jëwriñ ji toog wala président bii nee nu la wooyee rek wala nu leen wooyee yéen a jur am ci yéen yéen a jur am ci yéen ndax fekk ngeen ñu fekk ci liggéeyam sëñ Tuubaa bi fekk fi njabootu Serigne Fall gépp jëwriñam yi toog xam ne bu ngeen fekkoon sëñ Fallou rek dayoon na waaye ngeen ñëw nag fekk fi jëriñ sëñ Fallou ñuy jëriñu liggéey bi loolu Khalifa Babacar Sall neex na lool yaa mi nga àndal waxoon na la ni la li moo dal ñu baax ñi moo dal it baaxul ku am yitte ku ne fa nga jàpp fa nga jàpp ni soo fa demee la nga bëgg da nga ko am faaw nga dem fa kon fii moom ñëpp fi war a ñëw ni nga fi ñëwee te biñ séenee baara bi itam kàddu googu leen wax rek won leen ni leen ku mën a ñëw ku ne ko mën a doon war naa ñëw sañ naa ñëw la bëgg nay dëkk ci moom rek. tey lu koy jëriñ. tey loolu lu koy jëriñ. tey jëriñ barab a nag. nee na kim dàqal nag Xalifa Ababacar Sall. mooy tafamoon junniy milliards. mooy tafamoon junniy milliards. jox ko ñu def leen ko ci liggéeyam sëñ Tuubaa bi. ñu def ñu def defaat beneen defaat beneen. ba mu daj kam ba mu daj noo ñëwee rek. noo ñëwee rek. tey jëriñ liggéey bii. bii. du njëriñul liggéey luy njëriñul liggéey bi. du njëriñul liggéey bi. njëriñul yow ko def la. kon ñëw gi ñëw. kon ñëw gi nga fi ñëw. lu ngeen ñëwee rek. lu ngeen ñëwee. la cay topp la cay topp. du lore du rek. day jëriñee day rek lay jëriñ. kàddu yooyu la Cheikh Moussa bëggoon a wax ci sa kanamu kilifa yi. ba ngeen xam ne fii ngeen dem. la tax ngeen weesu bi. boo xamoon ni. lan koy wax. du seen wax ñoom ñii.

kon mu ngi noonu jërëjëf Fall. sëñ Modou ndax bu ngeen ñëwoon lu tax ñoom ñu jël kàddu de ca ñoom ñii ñu nekk fi nee ñoom ñii ñoo leen fi nekkal ñoo jiite mbooloo ñoo jiite liggéey bi sant nañ leen bu baax a baax a baax ci seen taxawaay bi ak seenu doxin ak seenub yar ak li nga xam ne amuñu lu dul moom kër Cheikh Ibra Fall gii mu di ak taalibe loolu kat mi ngi ci Cheikh Moussa mii ak rakkam ak kilifaam gii nee loolu nag ñoom seen waa ji lan la ñoom nee na nu ngul leen leen lépp ndax mënoon naa gën a diis fi ñoom buñ amul woon ñu mel nii cey waaye ndokk nag bin amee doom yu mel nii nangu ñu jur leen ci ñin leen jure muy ak taalibe ci loolu rek la ñuy dox ñoom ñi nee loolu nag lu doon na la ñoom ci seen waajur wa sëñ Modou Aminta Fall a tax ñoom ñu mel nii ñu mel ndax wolof day wax ni ku la gën ku la yar moo la gën loolu moo tax ñu mel nii ñu mel nee yéen yéen ñii nag nee du ci wax sax kàddu yu gudd waaye faw mu am kàddu yu mu la jox ndax da nga fee ñëwoon de weneen yoon booba defe naa fekkuñu fi ñoom ñii nee na moom mii nga fekkoon keroog ànd ak seen seen seen seeni jaam ñoom ñii Badara Baro Badara Baro Badara Baro ngeen ñëw fi mu yëkkati ab lim bu am solo jox ko sëñ Saliou ñu ko defal ma ko ci liggéey bi président Khalifa Ababacar Sall nga dellu si waat fi tey jii ànd ak Barthélémy Dias maire Dakar nga xam ne moom miinuñu ko waaye coowam dégg nañ ko moom bañ la dégg nañ ko waaw nañ ko sëñ bi ak la ci gis la rek xam nañ la ndax lay di la gis ci écran yi moo tax ñu xam la. loolu na nee na loolu yàgg na. waaw loolu nag Cheikh Moussa nee mooy xam na la. nee liñ ciy dolli mooy li tax a jóg Khalifa Ababacar Sall ba ñëw fii ci barab bi te barab bii nga ñëw di barab bu butukaay nga ñëw fi ñaari yoon la la tax a jóg ba jëf fi jëf jëf fi jëfoon la nga ci yaakaar Sall yàlla nga ci jot de ci barkeb Cheikh Ibra Fall jërëjëf kon tàllal say loxo nga bëggee boo ko amee doyul sax jox ko say loxo ñëw ñëw Pape ñëw ñëw ñëw borom jom la amin amin amin amin amin amin amin La ilaha